Balla Boy Niang Ngembo Boy Séréer. Balla Boy Niang Ngembo. waaw man fi mu daan Ngembo rek. Ngembo fi mu daan Ngembo ana ana ana. non dara

ak ay ndoxam ndeysaan lamb lamb la de

waa gaan ñu ngi pikin tey ñu war a xam ne ñoom ñooy gunge Boy Niang tey ñu ngi jëmee sat jëm arène nationale lamba ngi nii de wallu teen la bu ñëw ca pind ba ngay yem bis lay fay waaye waagaan daa mel ni bis bi tey daa jaral Pikine ah foofu ah, daa mel ni bis bi daa jaral waa Pikine jaral na leen tey yi dañuy làmb ñu ngi lamb combat bu bari coow ñoom Moussa noonu ñoom Massala ñoom Sambala waa Thiès teew nañ waa Thiès yëpp teew nañ Massala Massala kese ñoo koy borom tent ñun waa Thiès ñëw nañ Massala kese Alboury dafa daw ndey la. la. bëgg naa leen de. waaye dañ na lépp jàmm. ah. non non. waaye bi fee ana bi fee. bi fee mi ngi gàlle. mi ngi gàlle ah. mbay Babacar. mais eh, macha allah kese. Ah, macha allah kese. roxo boy la macha allah kese. te loolu waay ci fële. macha allah kese waaw mu ngoog. ah bu tey surtout surtout ñu ngi mën de xewle. bay sa xari li ci njom te ci kar booy yéen Balla Gaye 2 wala may gërëm kon ñu ko dara sama bu joxata inshallah wala ni tay ci guddi ci ñoo leen di féetu seetu dégg ngeen ko. macha allah wax loolu. tey Pikine am na confiance. nee Papa Noël dina indi cadeau Pikine. tey Pikine am na confiance Abu. waaw Papa Noël dina wàccee cadeau tey Pikine. tey Pikine am na ah, confiance Abu. am na confiance. rendez-vous am na nu rendez-vous ci téem tuuti rek yaa tuuti téem tuuti rek rek bu jeex bu ñëw ca di jàmm yee mais dama léegi mu ne dañoo décidé tey dañoo décidé dañoo ñëw pour làmb parce que tey man mu ma jàkkaarloo programme te le Balla Gaye naan dama koy duma daan ko dañoo làmb si tey fa ko teg Pikine dañoo làmb si dañoo ñëw pour làmb dañoo ñëw pour làmb ngémbawul këram ngémbawul këram daa mel ni fu mu ngémboo moo ñu jaaxal parce que ngémbawul kër Abdou Kandji ji kii defoon kii di Biram Ndaw man di nga sax ñu naan mbaaw gii di nga sax mbaaw la yembo ñeneen ñee ngi naan Kër Massar ba am seen ngemb ko jox ko ba man daanoon Balla Gaye de ñaari aller retour mais nañ bàyyi ba le premier bis bu mag la daan nit lañ daan onze kuy nekk douze onze kuy nekk douze ah. mais dama ne Balla ñu seeti ñu a seeti yaayam kan ñu war a seeti yaayam tey gi ñu war a ñëw wala seeti yaay booy ñaan <laughs>